jërëjëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak seen site internet bi di net bi TV li gën a fës ci bopp xabar yi nag dañu koy door rek autorité yu yees yi nga xamante ne rek ñoom ci bi daal dinañuy jël ab dogal nag tere lépp loo xamante ne rek tabax la ci littoral bi maanaam daal ci corniche bu Ndakaaru ginnaaw nag ba mbir mu nu mel kii di Pierre Goudiaby Atepa rafetloo kaneen ki nga xamante ne rek daal dinay rafetlu mbir mu nu mel du kenn rek ku dul Alioune bi nga xamante ne rek moom moo nekk fondateur bu 5-5 Afrikajom Sainte moom nag ci page Twitteram daal dinay rafetlu bu baax njàmbaar gi nga xamante ne rek président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal dina koy am nee na nag ma ngi leen di sargal bu baax ci seen engagement ak seen xalaat bu yaatu bi nga xamante ne rek daal dinañ koy def jëmale ko nag ci usage collectif yi nga xamante ne rek dañ koy daal di soxla nag ci zone urbaine bi ak ruro yeeg communes yi nee na nag mbir mënu mel ginnaaw nag xañ gi nga xamante ne rek xañoon nañ leen ko ñenn ci ñoom rek mënuñ duñ woon teg loxo fenn wala ñu teg fa tànk ci littoral bi wala rawatina nag ci trottoir yi nga xamante ne rek fa lañ di jaar moom nag la mu daal di xam ne ne nag centre urbain bu Ndakaaru mi nga xamante ne rek amatul woon benn place boo xamante ne rek mën nañ fa jëmbat wala ñu def fa lii di garab maintenant nag dina mën a accueillir bu baax nag population yi ak seen njaboot ginnaaw rek bi mu ne faw rek ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy eh, piétinaires yi maanaam daal ñi ñooy ñi yor seen tànk nag di dox ci biir eh, ndakaaru rek dina ñu kontaan ndax gis nañ ne rek tabax yi nga xamante ne doon nañ ko fa tabax nag nekk na mbir moo xamante ne rek bu bu intermittence la maanaam daal bu irrégulier rawatina nag dimanche yi nga xamante ne rek ñu ci bëri dañ doon faral eh, di génn mu daal di koy yëkkati comme eh, kaddu rek di rafetlu bu baax nag dogal bi nga xamante ne rek kilifa yi daal dinañuy jël nag ngir tere lépp doo xamante ne rek tabax la ci littoral beeg ci corniche ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir mën a am yeneen xibaar.